sëñ bi ma koddu Fall ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi nga jiite collectif impacté euh, liggéeyu teer yi tey euh, TER di waaja daw ñu bëggoon a xam rek ci fàttali lan mooy situation ñi ñu jàpp ne ñoo yàqule ci teer bi tey jëm ci seen terrain yi ñu leen digoon euh, seen dëkkuwaay waaye it indemnité yi. waaw maa ngi leen remercier ci sa invitation. mais vraiment euh, teer bi moom li xew moom dafa dafa jéggi dayoo de quoi dafa jéggi dayoo bu baax a baax parce que tey boo xoolee ñi nga xam ni euh, ñoo fi nekkoon impacté ñu déplacé leen mhm. par le projet fu mu nekk nii dañu dund lu metti instant bi may wax ak yow nii donc lu tax ma ne dañu dund lu metti mhm. mooy euh, vraiment li nga xam ne état bi moom la diggaale teen ñoom mhm. presque état bi respecté wu ci daal presque donc mën naa ne temps yi passé nañu door a dem di def Euh, aménagement site yi quoi ba ñuy def aménagement site yi il était question à ce que euh, suñ benn réunion bu ñu defoon avec le gouverneur et le DG l'APIX mhm. ñu waroon dem ànd ensemble dem def un lancement officiel ñu fixé ñu lu mat ñett date ya nga xam ni respecté wuñ ko ñu repoussé ko mhm. ba récemment gouverneur wax sax ne il a encore la date de vendredi mhm. pour ñu mën a ànd dem Euh, si surtout l'agro di def un lancement mhm. en plus de sa aussi ya y a des primes yi nga xam ni lu mel ni prime de vulnérabilité bi nga xam ni mhm. APEX waroon na ko fay ñëpp képp ku nga xam ne woon da yoroon sa kër te dëkk ci ci ci kii bi ci ci ci tracé bi donc ñu waroon te nga dëkkoon nga dëkkoon parce que ñi dëkkul woon te lu woon seen kër pas droit à ce prime là mais ñi dëkk moom ñëpp dañu war a am droit à ce mooy prime de vulnérabilité ñu estimé ko woon à à un million deux cent mhm. donc prime de vulnérabilité boobu ñu fay ci lu bari am na ñu bari nag ñu ñu fay mais mu des un nombre nombre bi des nag vraiment xaw ma ban critère nañ jël dem nañ foofu sax ñu ne yéen vous n'êtes pas éligible waru leen ci bokk waru leen ci bokk alors ñu ne waruñu ci bokk ñoom ñoo gën a vulnérable ñi ñu fay donc am ci fenn fi ñu ko teg. ci critère beneen bi mooy uh-huh, waaw. beneen bi mooy ñun ba doon am benn rencontre ak premier ministre Boun Abdallah Dionne que je remercie ci primature en présence du gouverneur et du directeur de l'APEX. Uh-huh. moom dafa ne woon nañu fay ñëpp ñi nga xam dañoo dëkkoon prime de vulnérabilité boobu nañ ko fay ñëpp. donc loolu lañu waxtaane woon donc ba tenir ko ba pare mais vraiment gars yi respecté wuñu loolu. Uh-huh. ci tey jii bu ñu demee agent yi nekk APEX di wax ne ñun amuñu droit am ci prime boobu loolu tamit ça pose problème mm-hmm. donc loolu moom vraiment ça pose problème beneen bi mooy perte de revenu locatif mm-hmm. perte de revenu locatif imagine toi un gars ba nga xam ne moom këram la yor doon ci loué ay nit di ci dunde ah yàlla def ñu ñëw yëkkati ko mais li nga xam ne tey jii loolu la doon recevoir comme gain ci biir kër gi mm-hmm. mais kooku dañ ko war a dañ ko war a donc lool ci par bi ci part bi mooy plan d'action et de l'installation mm-hmm. APIX da ko estimé woon ne chacun dafa am droit ñu multiplier le montant bi mu doon fay par mois ñu multiplier ko par six. Mm-hmm. ñu fay kaka mais euh, il s'est trouvé que ñu ci bari ci ñoom ci presque quasiment ñu bari. Mm-hmm. loolu fayaguñu sax nombre bu tuuti fay pour dire perte de revenu locatif. te vraiment boo xoolee ñëpp ñi nga xam ne dañoo nekk si tracé lu ci bari dañoo loué woon ñenn ñi magasin nañ ko luy woon ñenn ñi ay locataire nañ ko luy woon si suuf ñëpp nag ñu leen fay kenn fayu leen en plus de ça y aussi des commerçants quelques commerçants yi nga xam ba léegi ñu ngi daw si seen si seen si seen segg yi am na ay commerçants yi nga xam ne tamit boo demee marché Thiaroye seen marché ba àggul parce que loolu lañuy kaas ñoom tamit mënuñu leen de déplacer parce que loolu la ñuy dundee ils vivent de ça parce que commerçant yi tey jii bu ñu demee ba jël seen quantité ñu toj leen ñu dig leen euh, centre commercial bi nekk ci bi camp ba. ñu mm-hmm. commencé di ko tabax mu arrêté depuis deux ans trois ans kenn defatu fa dara avancé tuur ci liggéey bi. Mm-hmm. loolu tam vraiment c'est déplorable et ça pose problème. monsieur Fall ci xayma ndax am ngeen benn nombre ci ñëpp ñu yàqule euh, ci terre bi. nombre bi dañoo bari. Ah. en fait terre bi dafa dem ba en fin de compte xam nga tey imagine toi euh, benn xeex bi ngay xeex depuis deux mille seize ba à nos jours. nga xam ni chaque jour boo xëyee da ngay dégg lu bees gis lu bees mm. chaque jour boo xëyee yaa ngi ci revendiquer yaa ngi ci ay position mm. da dem ba liggéey boobu sax doo ko mën parce que bu njëkk dañ doon am ay données statistiques mm. doon def ci liggéey boobu mais tu n'as plus le temps matériel pour defati liggéey boobu donc li nga mën rek mooy ñi di ak ñi lay interpeller ak ñi di ñëw suñu réunion donc loolu rek nañu mën a di absorber mhm. ñuy jël seen seen doléance di ko jéggal euh, di koy yóbbu ci autorité bi. d'accord kon am nga benn cartographie ci ñi des. ñi des bien sûr bien sûr bari nañ dañu bari dañu bari dañu bari te vraiment paa yi je vous dis que instant bi may wax yow paa yi bari ñu ngi génn àdduna am na ñu bari ñi nga xam ne seen doom yi dematuñu école mooy conséquences yi. am na jigéen ñu bari ñi nga xam ni luñ doon def comme source de revenu kon ñu dëkkoon ay caara yi nga xam ni tey jii dañ daan toog xam dem ci marché bi jaay am dépense am lu ñu dundalee seen njaboot yi. Mhm. ñu yóbbu leen ay ginnaaw Kër Massar rek ay ginnaaw je n'ai pas contre ces ces ces endroits là mais amatuñ fa dara lu ñu fay exercer comme activité. Mhm. donc dañu dem ba perdre seen activité principale. donc loolu tamit vraiment c'est déplorable ñooñu dañuy dem ba léegi toog amatuñ lu ñuy def. ñooñu ñëpp nag ci naqar lañ toog fu mu nekk nii ci naqar lañ nekk. Mhm. ñoom ñëpp c'est des yi nga tey Duterte ñi nga xam dañuy ñëw suñuy di ñu ko jooy di ñu ko jooy da nga gis kuy ñëw paas. Mm-hmm. yow yaay di jox paas ñuy daal dem. ay mag ay mag des ans yi nga xam ni dañoo liggéey ba am am am ba réussir seen àdduna. Mm-hmm. réussir sa àdduna mooy la nga liggéey ba am kër. xam nga mm-hmm. ay mag yu liggéey ba réussir seen àdduna am kër am njaboot am ay setaar set ci biir kër gi ñu ñëw tas kër yi noonu bàyyi leen bi éparpillé wu dootoo xam fi ñu ne mag yi dañuy perte seen repère xamatuñu fu ñu toog mais c'est ce qui se passe ñu la sax wax donc a ce à ce cette période là gars yi waruñu war wax naa dañuy jéem a inaugurer terre na la tant que réglé wuñ suñu problème. Mm-hmm. suñu problème ñoom mënuñu ko régler sax dama ne ñu ko régler. mais dañ koy wàññi rek. dañ koy wàññi waaw dañ koy wàññi rek mais mënuñu mm-hmm. régler suñu problème ils ne peuvent pas mënuñu régler suñu problème. donc wàññi suñu problème nag. Mm-hmm. dañ ko war a def. te dinañ ko def nag. Ah. Euh, donc dinañ ko def euh, yaa ngi koy ah. wax euh, tey ji njiitu réew mi andi woon benn décret wax ne ñu jébbal leen li nga xam ne moom moo nekk ca surtout Lac Rose bi nga xam ne moom la ñu jëloon pour yéen lan moo mujjee xew ci mbir mi. wa surtout Lac Rose bi ñu koy remercier ci lool mu il a quarante hectares mu jox ñu mu génn benn décret. Euh, vraiment décret bi bañ publié ko journal officiel. Mm-hmm. loolu yëpp ñu rafetlu ko. Mm-hmm. mais il était question à ce que ñu déplacé wu ñëpp dem xool site bi. parce que lu mel nii dafa amoon lu lu similaire la nga xam ni moo fi xewoon lors de la réception du TER bañ koy euh, réceptionné en février. 14 mm-hmm. février ba bañ koy réceptionné TER bi. dafa dafa dafa dafa fekkoon ni. Kàncaaroy boobu ñu ngi doon dindi ñi def maraîchage. donc di préparer terrain yi indi ay catapillar ñuy ñëw di di di préparer terrain yi boobu yëpp boobu ñu ngi doon kii ba ñu ñu ngi commencé noonu mais ñu ngi commencé di aménager euh, terrain yi ñu nekk Grand yi mm-hmm. Mm-hmm. mais il se trouve que après aussitôt euh, la récession du terre mm-hmm. gars yi dañoo bàyyi liggéeyatuñu ba léegi ba tey ba suba amul dara luñ fa defati donc de la même manière moo tax ñi ñi en réunion ñoom ñëpp dañuy dute mënuñu fexe ba ñu gëm état te bu ñu gëmul état ils se se faire face ba lu concret am ñu gis affaire yi ñu koy accélérer. Mm-hmm. et puis nag ñu koy ñu mu am un suivi. pas aménager mu dem mais il faut qu'il suvi ait un suivi suivi bi nag ñun ak ñoom ñoo koy defee et puis nag il faut que xam nga li gën a grave. tu peux tey jii ngay ñëw am ay impacté ñu am ay responsable un collectif bien organisé comme suñu collectif nu organiser yow bu njëkk sax daan nga def ay réunion périodique chaque mois nga woo collectif woo PM wala woo kii gouverneur ak le préfets xam nga. loolu yëpp dafa dagg xanaa loolu yëpp dañ ko dakkal loolu yëpp amatul. loolu yëpp amatul si je vous gën nañoo réunion depuis deux mille dix huit xam nga deux mille dix neuf kon ñoom dafa mel ni impact yi jeex na si ñoom tey lan lañ teg seen loxo la yéen lan lañ teg seen loxo lu waral euh, mënu leen dugg wala mënu leen jot seen xaalis. non mooy mooy li may wax dilatoire yaa ngi xam nga affaire bi dafa bëri kenn mënu la expliquer c'est-à-dire que loolu ñun mënuñu ko comprendre bien vrai que nag ñi ngi ñi ngi ñuy recevoir ñu ngi leen di gis. Hmm. des fois bu ñu demee ñu wax ak ñu ñu dig mais dig yooyu c'est pas fondé xam nga tey jii ku la dig doo ko respecté loo ci mën. kan mooy diggee kan mooy diggee yéen. ñan ngeen jàpp ne ñoom ñooy c'est ñoom ñooy suñu interlocuteur ñoom ñoo ñuy recevoir ñoo ñuy wax. c'est le c'est ministre même du du transport moom da ci war a intervenir mais doo ko dégg. doo ko dégg ñoom c'est comme si dañuy la question du terre alors que ñoo la leur terre c'est une bombe sociale li ñuy wax nii ñu ngi lii lii de je vous dis dara doxagul ma ne soxna si ñun banlieue nañ dëkk mhm. te fi ñu dëkkee ci banlieue xam nañ ragal dëkku fa ci la long di tracé boo demee yaraax ci ci boo demee Dalifort ca raay ba boo demee ginnaaw raay ca raay ba boo demee ba boo demee ba boo demee mbaaw ci raay bi boo demee Rufisque ci raay bi demee Kër May Fall ci raay bi xam nga ne foofu ragal dëgg fa te ñooñu ñëpp nag yaa xool lépp a ngi fa mais terewul ñun on a pu xam nga canaliser ñëpp ba macha allah kenn musul lakk pënë kenn musul taal dugaluñu politicien dugaluñu activiste dugaluñu ci dara ñu xeex suñu propre xeex depuis 2016 ba léegi muy metti ñu muñ di wax di continuer di wax mais état bu dul déggee nii dina am neneen nu mu déggee. Mm-hmm. waaw mm-hmm. loolu moom loolu moom vraiment je tiens à le dire. d'accord te nag ñu ngi bës. mais bu ñu bàyyee dinañ xam ne bàyyi nañ. ñu dégg leen ngeen ne euh, ci inauguration bi yéen di ngeen am nu ngeen taxawee ndax loolu yéen a nga ca ba tey. bu baax a baax dimanche am nañ réunion. on a une réunion ba nga xam ne ñu ngi woo ñëpp on appelle. maa ngi sax utiliser seen médium bi pour woo tous les impacts du terre. ñoom est-ce que réunion leen ba pare nan ngeen di demee. non non ñun def nañ point de presse réunion nañ dem. Ah. mais dimanche tamit veille bi. dafa am leneen la nga xam ne tey jii incha allah bu neexee yàlla c'est décisif ñoom xam na ñoom état état la mais état xam nañ ñan la ko sekk. mbaa dinañ leen bàyyi ba ca cappaandaw gi ngeen du bàyyi la question là n'est ba du bàyyi. Hmm. xam nga bi mi ngi daw comprendre nga. nit hmm. ñi dañ dul accepter bi di daw di dem di ñëw ñun ci problème di demeurer mënul nekk. Hmm. waaw même bu ñu forcer te ñu ñëpp na nga xam ne boobu lay gën am danger sax. waaw mhm. heure boobu lay gën a am danger parce que am na nga xam ne on va pas l' accepter on nous tue mais on nous wallahi azim mhm. te xam ne fii ay ay ragal nekkuñu fii <laughs> ay tappel nekkuñu mais ay nit ñu conscient ñoo fi nekk ay ay ay ay citoyens yi nga xam ne des légalistes ñoo fi nekk mhm. ñun nous sommes des légalistes waaw ñun dañu dañu dañu dañu nous sommes des dañu dañuy dañuy taxaw taxaw nañ xeex nañ lu ñu war a dénoncer dénoncer mais kenn lakkugul kenn yàqul kenn deful dara. Mm-hmm. mais on a le droit d'alerter l'opinion internationale tey jii lépp lu fi xew kenn du ne waxuñu woon 2016 ba léegi ñu ngi wax 2016 ba léegi ñu ngi wax. Mm-hmm. donc am na la nga xam ne dafa dafa dafa dafa. dafa doy dafa doy. bu weesoo yàqule gi nga ci yàqule en tant que sénégalais citoyen sénégalais tey nan nga jàngatee TER bi ak tarif yooyu nga gis ne exposé nañ ko. waaw TER bi ñun depuis le début dañu ne TER c'est un bon projet. c'est un projet d'envergure xam c'est parce que leen rek moom mooy problème en matière de déplacement de masse dafa am li nga xam ni dañ ko war a respecter la réinstallation involontaire dafa am li nga xam ni tant que respecté wuñ ko woon dès le début day am ay conséquence ci fin bi mooy leen planification bi mooy leen étude impact environnemental ak social bi mooy loolu yooyu yëpp daagaay dañ ko posé dès le début moo tax ngay dégg gars yi di kaas ay passerelle gars yi di kaas ay inondation gars di kaas ay li asi parce que ni ñu planifier woon études yi ñu ci defoon nañ ce ne sont pas des études yi nga xam ni vraiment euh, euh, kii la woon na motoon na. ndax da ngeen jàpp ne tâtonnement la wala. non pas tâtonnement ñun mënuñu wax tâtonnement mais daal le constat est mooy étude yi moom euh, étude yi euh, desoon na étude yi moom ni ko defee desoon na looloo waral nag conséquences yi am noonu parce que ci le capital humain et plus important que le matériel roulant. Mm-hmm. loolu moom mooy wax ji maanaam tey ji li nga xam ne tey ji mooy ñi ñi war a déplacer ñoo gën a am solo ci wax dëgg yàlla euh, terre bi train bi en tant que tel di dem di ñëw muy matériel bi et tout ça parce que dañoo déplacer ay nit c'est des vies que tu as déplacé du ñu faral di wax nee nañ la ay ganaar boo leen di déplacer da wut ay ngunu ngunu ginaar ba pare doo leen mën a déplacer. Mm-hmm. mais si bi amul loolu. dañoo déplacer toj suñu kër jox ñu somation de dix jours dix jours kenn mu ci préparer pour tuxu moo tax lu nekk am na ci am na ñi xam ne dañoo jënd ay kër kër yi toj kër yi màbb ñi jënd ay kër ñu nax leen ñu dem ci yëg tribunal di wàcc amatuñu kër. mais conséquence bi mënuma la wax nu mu nu nu mu demee. Mhm. donc loolu yëpp am ci TER bi mais le TER en tant que tel suñu avis mooy c'est un bon projet projet bi vraiment ci dañu ne dëkk bu dee day développé il faut qu'il y la libre circulation des biens et des services. Mhm. dem beeg ñëw euh, TER bi ni tey ji ci transport de masse la tey ji képp kuy dem jam ñaajo bu jógee Dakar am loo war a régler. Mhm. avec le TER ko régler en moins de. trente minutes nga dem jëm ñaaja ñëwaat. loolu yëpp c'est possible. donc yooyu yooyu c'est des bons projets kenn weddu weddu loolu. Mhm. mais problème ki de tarif yi tamit c'est abordable. parce que tey jii ñu mën nañ ci yëg vraiment dem déplacé wu parce que ñi di dem di jël ay taxi dëkk Rufisque dem place de l'Indépendance di jël taxi ay mille deux cent ñu la à Rufisque tu peux mille francs fii ak Rufisque loolu donc c'est abordable amuñu problème ak li nga xam ne tey jii mooy infrastructure bi en tant que tel. Mm-hmm. lu ñu am problème mooy ñi nga xam ne tey dañ dañu leen déplacé te ñu gën a am solo infrastructure bi donc te respecté wuñu seen ak ak seen yelleef ñu foofu lañu am problème te mm-hmm. foofu la ñuy waxee euh, sëñ bi Macodou Fall ñu ah. lay jaajëfal bu baax a baax wa wa merci beaucoup